muy màggal goo xam ne day màggaluk lislaam di màggaluk Cheikh Mouhamadul Fadil di màggaluk mën nañu wax ndax sax humanité ndax dafa sa taxaw ci bis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf cee amoon taraanga joo xam ne am ci mbégte moo xam ne am ci wàccuwaay boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala mësu koo defal kenn muy bis boo xam ne itam taala daf ko tudd ci alquranul karim jagleel ko sax aw saar muy suratul isra mu doon kon bis boo xam ne xew-xew bu mag daf ci amoon ndax ci lay borom bi subhaanahu wa taala di ñaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéege ko yéege ko ba mu àgg fa ko soob mu jegeel ko boppam jege goo xam ne kenn mës ta jege noonu yàlla subhaanahu wa taala ci bisu rajab bii jox ko fa taraanga joo xam ne itam dafi des ba ba àddinay tukki muy xewal go xam daf ko indil aw xetam te moy julli jurom julli jurom moy keno bi gëna am solo ci l'islam ndax wax na ne moy ponk bi nga xamne mo téye mbarum l'islam mënu ci ñak ci guddi gii la borom bi subhanahu wa taala joxon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wàcce ko ci aw xetam mu ci yermande mi tam mu wayefal ko bam don juromi julli Cheikh Mouhamadul Fadil daana ko leeral di ko taqale jàngale ba ñëpp xam wax ne juróom fukk la won waye daf ko wañi ba nga xam ne dafa doon juróomi julli juróom fukk yoy tam manes nako dugalat ci bir juróomi julli ci ku coobarew muy nafi ay ay ay nawafil waye nak ku ko def ni ko wara defé sunu borom dana la jox yoolu juróom fukk yoy mu joxe won te da nga xam ne jëfe nga borom ndigalul borom bi subhanahu wa taala te ku jëfe ndigalam rek la bëgg mu doon bis bo xam itam شيخنا احمد الخديم رضي الله عنه داكو فونكون با بيند سي اي خصائد يو باري باري يو خامني داكو تنكي يوم رجب بوكنا سي بي سي غنا سيو موي بيس بيغا خامني يا فاضلا فضله الخلاق يا من به فارخني الاملاق غا خامني دانيو واخني يوم رجبين لاكو سيرين بي تنكي